bilaay yow lañuy damoo sëriñ bi ñoo ngi lay damoo sëriñ bi ñoo ngi lay damoo baay sang bi yow lañuy damoo bilaay yow lañuy damoo wallaay baay lañuy damoo di damoo di damoo yaaram bi yow lañuy damoo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 siraatal lazina amta alayhim hayri mahdubi alayhi wala daalina amin allahuma salli ala seydina muhammad alfatihi lima uliha xaatimi lima sabaxa naasir haq bil haq wal haadi ila siratika almustaqim wala ali xaqa xadri muxtaari azim di julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ah, di nuyu di ñaanal suñ suñ sëriñ maulana cheikh ahmed tidiane yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem di ñaan suñu di ñaanal suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem di nuyu uh, suñu xalifa Cheikh maaxi Ibrahima ñas yàlla uh, guddal fanam mu yàgg fi lool ànd ak wér uh, di nuyu suñu imaam imaam akbar Cheikh Ahmed Tidiane Cissé yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak euh, ànd ak wér yàlla taas ñu ci barkeem ah, ñuy ñaanal suñu sëriñ Mawla ya Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass yàlla guddal fanam mu yàgg fi lool ànd ak wér. Ah, bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa may nuyu di nuyu sama mbokk ah, taalibe yi nekk ci faydu bi yëpp. di leen ñaanal yàlla eh, guddal seen fan may leen mbëggeelu Cheikh Ibrahima Niass bu amul dayo amul amul àpp eh, di ñaanal taalibe yëpp yàlla saxal ñu ci faydu yàlla bu ñu génn ci faydu yàlla buñ ci tarxiis waaye yàlla bu ñu xam ku ñu tarxiisal ci faydu yàlla buñ ci génn yàlla buñ ci yooxe yàlla bu ñu xam kuñ ci génnal bi jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ñëw tey ci beneen waxtaan muy waxtaan euh, jigéen ak euh, faydu waaw jigéen ak faydu melakaani jigéen ak faydu maanaam euh, d'abord lan mooy faydu faydu mooy loo xam ni luy bëbb faydu mooy loo xam ni day bëbba Euh, lu lu dul jeex ñu ne euh, fiñ koy jëlee du jeex fiñ koy sotti du fees euh, lan la ñuy jëlee ak lan la ñuy sotti li ñuy jël mooy islaam mooy diine islaam mooy mooy charia mooy sunna loolu mooy loolu la Cheikh Ibrahima Niass yàllaa ko indi Euh, suñu biir pour mu tàggat doomu aadama euh, ci modelu islaam modelu euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam biñ ko yónni muy diine islaam muy alxuraan muy sharia muy sunna ci loolu la tàggat taalibeem ba nit ki nekk jëmmi alxuraan. ba nga xamee ni moom euh, nit ki moom xolam euh, xol bu gëm la parce que yàlla moo ni man xajuma asamaan xajuma kaw suuf mais man xaj naa ci xolub jaam yàlla bu ma gëm donc moom bàyyi dafay ñëw tàggat xol bi ba xol bi nekk xol bu gëm yàlla tàggat nit ki ba mu nekk jaam bu ragal boromam waaw mu nekk euh, nit koo xam ne jullit àqan la loolu la bàyyi indi waaw tàggat eh, tarbiya nekkul lu dul yar tarbiya mooy yar yar nit ki ci lan yar nit ki ci ci boromam parce que doomu aadama mënta baax mukk lu dul dafa delluwaat ci boromam te bàyyi dafa jël doomu aadama delloo ko ci boromam waaw delloo ko ci boromam ah, tarbiya ko eh, ba nga xamee ni eh, nit ki dem na ba ci jëm yàlla ji bàyyi mu ne Euh, a ajanaa ngi nii moo jàq ajanay kaw ñu ngi ko ban aja mun xanaa jëm yàlla ji waaw te jëm yàlla ji bu lay fa yóbboo mooy nga bëgg yàlla euh, dafay tarbiya doomu aadama ba kooku bëgg xolam yëpp mbëggeelu suñ borom moo ci nekk bëgg nga yàlla ba yow sa àdduna yëpp yàlla rek ngay gis ba nga jeex ci jëm yàlla ji euh, ci jëm yàlla ji bëti yàlla mooy gis yàlla nopp yàlla mooy dégg yàlla waaye eh, xol yàlla eh, xol boobu mooy xol boo xam ne moom dee na ci jëm yàlla ji loolu la bàyyi def pour taalibe waa léegi nag ñu ne jigéen bi nga xamee ni moom ah, mi ngi nekk ci biir faydu kon mooy jigéen bi nga xamee ni moom ah, jigéen boo xam ni dafa seey ci jëm yàlla ji ah, ba nga xamee ni moom léppam boromam la léppam yàlla la euh, léppam charia euh, la léppam alxuraan la léppam sunna la euh, kooku jëmmi alxuraan la moom jigéen jooju waaw ñu ne lan mooy melokaanam mu ne melokaanam mooy lan mooy melokaanu jullit rek melokaanu jullit rek jigéen jooju moom léppam bu waxee ñu gis ni kii kat Euh, jullit la waaye bu jëfee ñu gis ni kii kat jullit la ñu ne kooku nag mooy jëm mooy jigéeni faydu jigéenu faydu mooy koo xam ni dem ko ni jàkk nga gis ni kii vraiment jigéenu jullit la ndax gis nga mu sell gis nga mu jub waaw kooku mooy jigéen bi Baye Niass di defar waaw euh, faydu nag Euh, boo ciy ñëw jigéen bi nga xam ni moom ñëw na ci faydu mooy jigéen bi nga xam ni moom dafa bëgg dafa bëgg yàlla mu mar yàlla waaw loolu moo ko tax mu jukk sol ni maa ngi dem uti ji euh, ku ma gën a bëgg yàlla ku ma gën a gëm yàlla mu gën maa jegeel sama borom loolu mooy kooku mooy jigéen boobu waaw nga dem seeti koo xam ni moo la gën a jege bor sa borom nga dem mu xëcc la yóbbu la ci euh, sa jëmmi borom yar la euh, ci sa borom yar la ci modèle ban mooy modèle bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi muy model boobu mooy modèle bi gën ci modèle yi mooy diine ji gën ci diine yi mooy euh, loolu ci buntu ban ci buntu euh, Maulana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu euh, mooy euh, ci tarixa cheikh tarixa cheikh mooy tarixa boo xam ni mooy tarixa boo xam ni tarixa bu jëm ci yàlla mooy tarixa bi nga xamee ni moom la seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di maamu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu joxoon am doon ut mu yàlla jox ko salaatu bi gën ci salaatu yi mu koy taggal ki mu gën a bëgg ci ci ci ci ci ci àdduna ci lépp muy Seydina xam salaa salaam ñu jox ko euh, salaatu boobu ñu ne ku jàpp ci tarixe boobu di nga egg ci sa jëmi boroom laa loolu nag ba nga ñëwee ci ci Cheikh Ibrahima Niass nag moom mu yombalal la yoon woowu euh, sànni la ci pays yàlla bi duggal la sóob la ci aqiqatu muhammadiya euh, mi nga xamee ni mooy dëgg-dëggi euh, royukaay bi mooy dëgg dëgg euh, model bi foofu nag ku fa génn rek nekk ku gën ci ñi gën ci ñi gën waaw kooku nag mooy jigéen bi nga xame ni bu ñëwee ci faydu moom dafay daal di gën dafay daldi gën Euh, ñëpp parce que bàyyi mu ne maa ñaan dafa ñaan euh, boromam mu may ko ci lépp lu mu koy may mu may ko ci li gën kon jigéen bi ñëw ci faydu mooy jigéen bu baax lay nekk jigéen bu gën sax lay nekk laay wax jigéen bu gën parce que jigéen moom ci daf moom rek moo war a ñëw ci faydu parce que jigéen euh, moom dafa war a baax jigéen mooy ki nga xamee ni moom moo war a defar àdduna ñu ne bu jigéen baaxee àdduna baax waaye bu jigéen euh, bonee àdduna bon ñu ne euh, benn euh, ñu ne benn nga defar benn jigéen boo def jigéen bu defaree benn jigéen rek moom day defar humanité waaw kon jigéen moom baax rek moo ko war bu ñëwee nag ci faydu nag faydu moom day dëggal mbaax moomu parce que taalibe baay mooy kan mooy ki nga xam ne ni moom ndeysaan dafa bëgg yàlla comme ni nga ko waxoon yàlla di ko fuklu di fuklu yàlla ba nag euh, yàlla dimbale ko indi ko ci ëttu Mawlana Cheikh Ibrahima ñas mbëggeel googu mu bëggoon yàlla euh, yàlla dimbale na ko indi ko ci ëttu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass daal di koy yombalal Euh, euh, mbëggeel googu dë dëggal mbëggeel googu ubbi ko ci mbëggeel googu ba mbëggeel googu installé wu complètement ci moom waaw ba nga xamee ni kiiraay yi nga xamee ni peut-être moom moo jàppoon jigéen jooju ba nga xam ne mbëggeel gi nekk ci moom mënut a dëggu mënut a installé wu mënut a jël place ci moom kiiraay yooyu la bàyyi di dagg moom lay dindi ci sa kanam ba nga xamee ni yow euh, léegi euh, dara li nga xamee ni moo nekkoon di la gêner euh, ci sa mbëggeel googu pour nga àgg ci sa jëmmi borom li la doon gêner yëpp bàyyi da koy dindi ba yow léegi yow amatul lu lay gêner sa digganteeg sa borom léegi nag jot nga ci li nga bëggoon muy dëggantaan jëmmi yàlla ji muy dëggantaan jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ah, muy dëggantaan jëmmi Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu muy dëggantaan eh, saahibul fayda muy baay mbëggeel maanaam mbëggeelu dëgg mbëggeelu dëgg ngay jot yow jigéen jooju ya eh, ngay jot ci mbëggeelu dëgg eh, ba nga xamee ni yow jigéen ju dëggu nga dangay nekk dëggu ci lan dëggu ci sa borom dëggu ci alxuraan li ñu santaane yàlla yi dëggu ci lépp li ma ne baay moom mooy euh, bakkanu xalifa mooy bakkanu xalifa suñ borom ci kaw suuf kon yow euh, ku ñëw ci baay bu la tëggee da ngay nekk xalifa euh, xalifa yàlla parce que yàlla moo ni maa wàcce doomu aadama mu nekk sama xalifa ci kaw suuf waaye xalifa boobu balaa muy nekk dëgg-dëgg xalifa da ngay ñëw ci baay mbaay mooy jël nit ki tëgg ko def ko dëgg dëgg xalifa xalifa yàlla ci kaw suuf waa léegi nag xalifa yàlla ci kaw suuf moom mooy représentant wu yàlla ci kaw suuf représentant yàlla ci kaw suuf nag ah, moom ni yàlla wax yàlla li mu yàlla wax ni alxuraan ay waxam la ah, yow sa melokaan ah, ku la gis rekk gis wax yàlla ci yow ni yàlla décrire li yàlla bëgg eh, ci ngay nekk li yàlla bañ eh, doo ko mënati li yàlla santaane yàlla ci ngay nekk li yàlla santaanewul mënoo cee mënoo cee nekk déedéet ndax sa xol ah, moom yàlla moo fa nekk gëm nga gëm ki gëm nag ah, moom moom mënuta eh, gëm leneen ku gëm yàlla mënoo gëm leneen ku bëgg yàlla mënoo bëgg leneen waaw kon nag euh, euh, li nga gëm mooy suñu borom gëm nga ni yàlla am na gën nga gëm nga alxuraan muy wax yàlla yow gëm nga euh, li santaane yàlla gëm nga yonentam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay jëfam ak melokaanam ak li nga xamee ni moo fi am kooku mooy li nga xamee ni moom mooy jigéeni faydu jigéenu faydu mooy jigéeni jullit ak xan mooy jigéen ban mooy jigéen bi nga xamee ni euh, li yàlla wax si ci ci jigéen euh, ni mu ko santaanee euh, ku la gis noonu lañ lay gisee ni mu wax ni jigéen yow naa ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par exemple waxal jigéen say jigéen ñu muuru ñu wàcce seeni euh, muuraay ci seen kaw yow loolu la ñu njëkk a gis ci yow parce que li ma ni jigéen ñi ba yàlla di waxanteeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yàlla damaa bëgg nga wax say jigéen ñu wàccee euh, seeni muuraay ci seen kaw jigéen ba muy wax ak jigéen ñooñu moom jigéen ñi faydu la doon waxal parce que baay mooy xalifa Seydina Muhammad sallallahu alayhi baay taalibeem ci biir aqiqatu muhammad ya dëgg dëgg yonent ci booba foofu lay jël ay taalibeem foofu la leen di yare foofu la lay raxas foofu la la dugal foofu la lay foofu la lay eh, fomante foofu la lay defare kon jigéen jooju moom mooy eh, jigéen ji nga xamee ni moom la yàlla doon wax ak Seydina Muhammad saa saam ni ko waxal say jigéen ñi ñëw mu réeku kon jigéeni faydu dëgg dëgg dëgg dëgg mooy jigéen ñooñu kon d'abord di war jigéeni di faydu mooy nga muuru nga war say cër ki bëgg yàlla ah, àdduna tere koo egg ci jëmmi boromam àdduna mbiru àdduna tere koo egg ci jëmmi boromam ba mu ñëw ci baay baay dindi àdduna dindi kiiraay googu kiiraay gi nga xam ni moo dox diggante ma borom mu dindi ko kooku ah, kiiraay googu am na yu bare yoo xam ne ñu ngi ci àdduna waratuñ la cee gis yow jigéen jooju kenn waratu ci la cee gis parce que kiiraay yooyu yow bàyyi dagg na ko dindi na ko ci sa kanam waaw def ci sa xol bi yàlla kese waaw def ci mbëggeel waaw nit ki nag li nga bëgg ah danga ci ah, ay santaaneem danga boo xoolee eh, sa borom kër bi nga nekkal rekk nga bëgg ko maanaam nekk këram da ngay dox ci waawam ndax yaa ngi ragal euh, maanaam nga jot ci meram waaw wala nga jot ci euh, mu bàyyi la wala mu génn ci yow waaw léegi nag ki bëgg yàlla moom kon yow yaa ngi ragal daj ci meru yàlla wala nga daj ci yàlla gëm gëm gëm yàlla génn ci yow kon nag euh, ragal boobu nga ko ragal moo tax cantaane bi mu la sant yow dinga ko ragala bët yaa ngi ci nekk ci loolu mbëggeel googu la bàyyi di def ci doomu aadama moo tax boo gisee jigéenu bàyyi nga gis yàlla kese nga gis ci ñoom jub rek euh, te jigéen euh, yàlla de ku ñëw ci moom rek jub ku xam yàlla rek jub waaw kon loolu mooy euh, en gros loolu mooy jigéen bi nga xamee ni moom mu ngi ci biir faydu waaw melokaanam mooy melokaanu jullit jigéenu jullit axan waaw parce que yàlla moo ñu sant euh, julli moo ñu sant or moo ñu sant euh, natt joxe mburu joxe asaka ci suñ ko amee waaye moo ñu sant euh, aji màkk suñ ko mënee waaye yàlla moom moo wëlbatikuwaat wax wax ak yónnentam bi nga xam moom la yónni muy Seydina Muhammad saa salaam nga xam ne moom moo ñu yónni ci ñun ni ko waxal sa jigéen ñi tamit ñu wàcce seeni seeni voile seeni muraay ci seeni kaw te nag wàcc muraay boobu nekk lu dul kiiraay ci ñun waaw ah, nekkul yàlla lépp lu mu ñu sant rek lu baax la ci ñun lu gën ci ñun la bu ñu eh, waxee ñu muuru comme jigéen moom moo war a defal àdduna bu jigéen ñëpp muuru woon rek àdduna bi eh, dina gën a baax li ma ni eh, muuraay li nga xamee ni moom lañu yàlla sant muuraay eh, mooy liy defar ay jullit waxuma waxuma defar jigéenu jullit de mais defar jullit day defar ay nit day defar jullit day defar melokaanu jullit parce que eh, yow góor gi ñëw si jigéen daal di koy bëgg fekk jigéen jooju mu ngi muuru ah, góor googu moom eh, bëggul jigéen jooju ci jëmmam ndax gisul jëmmam ji moom li mu gis ci moom mooy taaru biiram la gis moom taaru biiram boobu mu gis ci moom mu tax mu takk ko taaru biir boobu mooy lan mooy jikko yu baax yi mu gis ci moom euh, jëmm jooju taaru bitti boobu moom amul benn njëriñ ndax taaru bitti moom yàgg-yàgg euh, day dañ koy ñàkk rekk ki takk jigéen fekk taaru bitteem la gis mu takk ko buñ demee ba ci kanam bu taar boobu fi jógee ndax yàgg-yàgg taar boobu daf fi jógee taar bitti moom daf fi jóge jigéen bu demee ba am doom am am am am euh, ñaari yoon ñetti yoon taar boobu day daal di euh, daal di ràpp léegi nag taar boobu bu ràppee lan moo fi des taar biiram ay jikkoom yi sell lu jigéen màgget jëmmam day màggat waaye bu jigéen di màgget jikkoom day gën a rafet kon yàlla bu mu ñu waxee nañu muur jëmm yi pour génne jikko yu rafet yooyu kese la pour obliger nit ñi ñu rafetal seeni jikko loolu moo tax yàlla oo jigéen ñi pour ñuy nëbb taari bitti yi di feeñal taari biir yi ndax bu fekkoon ni ñépp da toppatoo nañu taari bi euh, biir yi bu fekkoon wax ñépp muur nañu kon nit ñi dinañu jéem a def effort bi ñuy def pu taaral bitti bi dañ def effort yooyu pu taaral biir bi taar biir bi la ñuy gën a def effort pour taaral ko léegi nag tam dinañ obligé nit ñi ñuy xool taari biir yi te di bàyyi xool taari bitti yi loolu moo tax ma ne muuraay boobu bu ko ñëpp defoon kon àdduna dina gën a euh, baax jigéen ci muuraayu jigéen Euh, ci la euh, defaru àdduna nekk ci ñi li defar àdduna bokk na bokk li ci parti pàcc bu gën a mag ci loolu parce que bu fekkoon ni rek euh, développé nañu taari biir yooyu rek nit ñi dootuñu ci taari bitti yi parce que gis nañu suñ jamono jii ñu nekk ni nit ñëpp bitti rek la xool bitti nit ñi rek apparence li tubaab di wax apparence nit ñi apparence rek la ñuy seet ci doomu aadama yi loolu moo yàq jamono. loolu yàq na jamono kenn xoolatul jikko yu baax yi kenn defa defaratul effort pour defar jikko yu baax yi mais ñi ngi def effort rek pour defar ji di defar taari biti yi rek apparence rek la ñuy defar moo tax moo indi euh, yokk yi ñuy yokk def nañu te loolu dara indiwu ko lu dul nasaraan yi nasaraan yi moo ñu ñoo ñu yàq. nasanaar yi ñooñu nax dañu nax ñun jigéen ndax nasaraan yi euh, gis nga taaru bitti bi nga xam ne moom lañ defar muy apparence ci la ñuy sonn sonn googu ñuy sonn ci leen leen yàlla di nattu yàlla ngi leen di natt bu ngeen seetloo ni ki nga xamee ni mu ngi muuru kol bi muy muuroo mi ngi koy jëndee ñaar téeméer ba ñetti téeméer. waaye greffage bi nga xam ni moom mooy yoom la ñuy def seen bopp yi pour yokk seeni karaw pour defe ni loolu mooy taar bi ñu ngi koy jëndee trois cent mil ak deux cent cinquante mille ay cent fois plus lañ koy jënde te nag boo ci jënd boo ko solee ay fan mu yàqu nga sànni utaat beneen loolu mooy nattu bi leen di yàlla di nattu ndax yàlla lépp lu ma la tere boo ci toppee coono kese nga ci jële te coono boo xam ni amul benn njëriñ ci yow nag gis ngeen ni tubaab yi ñoom dañoo dem euh, lu ñu njëkk xewal mooy ay yëre yoo xam ni dañ koy dañ koy dañ koy sol mu mu seere ci seen yaram pour di génne fësal seen taari biti yooyu di fësal yaram bi ba mujj gi yàlla natt gi mu leen nattu ñu bàyyi yëre yu seere yooyu ñuy sol pour di fësal taar yooyu mujj gi ñuy def yoo xam ni day yaraax pour ñu génne taar bi mujj gi chaque année rek ñu génne de ba caa ñu dem ba caa ñuy génne yoo xam day gàtt pour taar bi di gën a feeñ ba mujj gi doyul léegi nag ñuy faf di yokk jëmm yi ñuy dem di opérer di yokk jëmm yi euh, di dem di di di di di di di di pikiiru pour yokk jëmm yi di jënd xef di yokk di jënd euh, diw di diwu di jënd di def pour fësal taar biir bi te loo ci def tey boo ko bàyyee suba soxlawaat ko parce que amul nax la naxe la amul loolu ñoom nag bu ñu jógee dañuy wax yéen seen jigéeni kat jigéen islaam euh, maanaam euh, euh, jullit ñoom dañ leen def ay dañu def ñun ay ay ay esclave ñu ne yéen seen dañ leen def comme si yéen dañ leen di muur di leen nëbb parce que dañ leen noot mais ñoom la seeni nit ñoom ñoo noot seen bopp parce que ñun yàlla def ni muur leen seen cër yi rien que pour génne li nga xam ne mooy nit li nite ci nit mooy jikko yu sell jikko yu baax yow yooyu nekk ci nit loolu mooy nite loo xam ne bu jógee ci nit yow nekkatoo nit bu nit bu nit bu nite jóge ci moom moom mala la te jikk nite googu nekk ci yow nag yàlla mi la muur pour nga génne nite googu la li nga xamee ni moo tax yow nga nekk xalifa yàlla ci kaw suuf nga nekk xalifa lépp lu yàlla sàkk yow nga nekk ko loolu mooy nite gi nga nite léegi nag nite googu bu jógee ci yow yow yow nekkatoo xalifa yow dañ laa ilif mais yow nekkatoo xalifa dañ laa ilif parce xalifa ki nga xam ne moom moo représenté borom bi ci kaw suuf kooku moom jikkoy li yàlla so sopp ci moom mooy mu nite mais bu nitewul rek dafay nekk mala yàlla sàkkul mala yi ni leen yéenay xalifa ci kaw suuf waxul malaaka yéenay xalifa ci kaw suuf mais doomu aadama la yàlla wax ni yow laa def sama xalifa ci kaw suuf doomu aadama boobu nag lan moo tax mu nekk doomu aadama ñu différencier ko ak mala bi mooy nite bi mu nite nite boobu nag lan la mooy gën gi mu gën ndax li mu gën mooy model yi ki nga xamee ne moo gën ci mbindeef yi muy Seydina Muhammad saa salaam nga xam ni lépp luy sàkk ci kooku lu tax ñu sàkk ko ci ñun ñu sàkk ñu ci ci leeram googu leer googu nekk lu dul jikko yu kawe yu cedd yu kawe yooyu nekk ci moom loolu nag bu jógee ci yow rek mala nga tubaab yi nag maanaam nasaraan yi nag loolu lañuy bëgg a génne ci ñun léegi nag fësal lan mooy li nga xamee ni mooy suñ jëmm yi léegi nag jëmm jooju nag boo ko taaralee lee ci boppam day daal di nëbbu ndax yow talatoo ko yaa ngi tal jëmm ji te jëmm ji loo ko jox tey bu soo mu laajaat la ko loo ko jox rek mu laajaat la ko alors que jikko yi boo ko defaree moom laajaatu la dara euh, baax nga euh, loo xam ni installé na parce que loolu la yàlla sàkk ci yow yàlla mu ne man du ma ki may euh, ki nga xamee ni du ma euh, ki ma du ma bu keroog alaaxira bu ngeen ñëwee man liñ ci biir xol bi moom laay seet mu ne man man yàlla xajuma asamaan xajuma suuf mais xaj naa ci xol bi yaa yàlla bu ma gërëm kon li am importance mooy xolub doomu aadama léegi nag yow boo fi nekkee di defar sa sa bitti rek yow sa xol bi mooy yàqu xam nga xol boobu nag bu yàqoo rek ah, euh, jëmm ji moo koy mëdd bu ko mu jëmm ji mëddee rek yow xol boobu moom mënatul defaru léegi nag lan mooy defar xol bi mooy yow nga fàtte sa jëmm ji sànni sa jëmm ji jëlal jëmm suñ borom bi xam nga làqatul ci suñ borom làqatul ci li nga xamee ni moom lay alxuraan la nga xam ne moom la ñu indi li mu indi boo ci royee boo ci tënkoo rek nga baax loolu mooy yàlla lu mu ñu tere rek lu mu ñu sant wala lu mu ñu tere rek loolu moo gën ci ñun xam nga tubaab yi nag ñoom nasaraan yi sax lay wax ni la ñoom liñ ñu andil mooy li nga xamee ni moo ñu nekk jaamu jëmm bi te jaamu jëmm bi amul njëriñ parce que loo ko jox tey bu saa mu laajaat la ko donk muur euh, te euh, muuraay bi ji muuraay waxaat naa ma waxaat ko encore muuraay bi ñuy muuraay mooy li nga xamee ni moo fiy indil nit ñi indi nit fonk nit lii niteel nit mooy fonk jikko yu sedd jikko yu kawe jikko yu baax fonk mbaax fonk mb euh, jub léegi loolu boo ko fi jëlee rek maanaam leneen lañuy ñuy bëgg leneen la ñuy bëgg mooy li amul benn njëriñ ci ñun moo tax jigéen jigéenu euh, faydu mooy jigéenu jullit baay ci boppam indiwu fi diine bu bees waaye dafay indi leeral diine euh, dëggal diine daf koo leeral dëggal ko parce que ni mu ko dëggale mooy dafa jël doomu aadama rekk daal di koy tëgg tëgg tëgg ko defar ko defar jikkoom ci modelu seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko muy koo xam ne xalifa ku ko gis rek gis yàlla ci moom baay jigéenu jullit xalifa la ci kaw suuf xalifa borom bi la ci kaw suuf kooku mooy représentant suñ borom ci biir këram mais mooy représentant suñ borom ci biti représentant suñ borom ci biti Euh, kooku euh, li yàlla santaane suñ ko xoolee rek dañ ko war a gis ci yow te li ma ko wax nit ki nga xam ne mi ngi sëy ak nit ndax dafa ko takk ndir jëmmam bu jëmm ji ràppee rek mu uti beneen jëmm ju bees waaye bu fekkee ni da koo takk ndax jikkoom bu ngeen di màgget lu ngeen di gën a màgget jikko ji di gën a rafet jikko ji di gën a baax te jikko jooju rek moom nga mën a jox sa doom parce que yow doom ji di yow yaa sàkk jëmmam mënoo defar jëmm ji kenn mënu koo changer nii la ko yàlla indee nii la ko mais jikko nit mën nga koo changer jëmale ko ci boromam wala nga jëmale ko ci rek ci ci ci seytaane ci àdduna noo tax yàlla mu ne muur leen jëmm yi pour jëmm yooyu buñ ko muuree doomu aadama yi delluwaat gis euh, taari suñ borom yi taari suñ borom yi mooy jikko yu rafet yi mooy muñ gi ci muñ mooy mooy mooy mbaax gi mooy mooy mooy mooy mooy eh, première question bi euh, dafa am question yoo xam ne ñi ngi ñëw ci ci ci taalibe yi di ko doon euh, yónnee euh, suñu mbokk yi yónnee ko pour ñu tontu ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah